mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaan dellu si seen émission ëttu ndaanaan ëttu ndaanaan nag tey ñu dalal benn ndaanaan boo xam ne dootuñu ko présenté ci réew mi ak bitim réew maam Thierno maam Thierno Kër Baye maam Thierno daal <laughs> xam naa ne ñu ko présenté fenn donc ñuy nuyu suñu yaay mère Fana Cissé nga xam ne moom émission bi émission la du ko tardé benn yoon ñoo ngi koy nuyu di nuyu njabootam di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ak euh, taysiir ci bi jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam maam Thierno maa ngi lay nuyu ci ëttu ndaanaan. <laughs> Eh, waaw El di wax salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna bi yëpp ah di nuyu ñëpp rawatina waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fi nga xamante ni mooy suñu lépp. Mm-hmm. waaw lu nu am ñoom na nu nu mel ñoom la di leen nuyu bu baax a baax eh, di nuyu tamit eh, fa ma jógee muy waa Kër Sëñ Ablaye Yaxin Makatin maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom ñëpp di nuyu kenn ko ci nekk rek ak kulluhum ak képp koo xamante ne rek mbokk internet nga te ngay bëggee tamit maam Thierno maa ngi lay nuyu di la ziar <laughs> maam Thierno la ñu amoon ëttu ndaanaan ñu koy sant loolu nag ci nangu gim ñu nangul ñëw ëttu ndaanaan euh, maam Thierno ñoo ngi lay sant di la gërëm ci ñëw ñëw ëttu ah, mais maam Thierno tey bu ñu xam kan mooy maam Thier mhm. euh, comme ni ma koy laajee artistes yi fi jaar mhm. maam Thier fan la jàngee fan la màggee fan la mhm. yaroo parce que dañ koy bëgg xam parce que concept émission bi moo laaj loolu dañuy bëgg artiste bi bu ñëwee ci plateau bi mu summi mbubbu artiste am ñu waxtaan ci moom mooy kan fan la jaar waaw waaw <laughs> donc loolu moo loolu mooy concept émission bi mais euh, maam Thierno fan la euh, jàngee. Mhm. fan la màggee fan la mhm. juddoo gis nga ni ma koy ni ma ni ma koy tourné. <laughs> waaw loolu loolu. waaw donc loolu lañ bëggoon a xam. Euh, waaw loolu moom yaakaar naa ni. Mhm. du doon lu difficile. maanaam lu lu lu simple comme ni nga ko waxee rek. Mhm. ñun suñu paree ci affaire bi bu ñu nee comme ñu ni coupé. Mhm. maanaam mbubu artiste beeg yooyu yëpp summi nañ ko. fële ko teg ko fële ñu ko sumee teg fële nag mbubu taalibe bi ak mbubu Baye Fall bi la ñuy sol. kon tey mbubu Baye Fall bi la ñuy sol waaw parce que boo nee maam Thierno. Mhm. sa xel dina dem ci maam Thierno borom daaru sa xel dina dem ci leneen ak leneen parce que yàlla dogal mu juddoo kër sëñ Ablaye Yaqin murid ga Thiès waa nga Thiès waa la pure et dure dëkk Thiès juddoo kër sëñ Ablaye di ziar sunu xalifa bi nekk foofu muy soxna say bata di ñaan yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér mm-hmm. ci noonu laay ziare sunu xalifa kër sunu kilifa muy Serigne Modou Ngom bu ñu tuddee Serigne Modou Ngom rek yaakaar naa ne bàyyi kenn waaw di ko jël suñu teg ko ci moom mu jotale ñu ko suñu euh, Serigne suñu wasila muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noo rey di am mbégte bu baax a baax a baax ma juddoo mut ga jàngee ci biir kër ga ndax daara ji foofu la nekk ci biir kër ga. dafa am na fa moom ah, daara fa la daara ja nekk fa la jumaa ja nekk fa la lépp nekk. daara de bu ñu waxee alxuraan. alxuraan moo tax. Mhm. après nag dem nañ jàngi nasaraan jàngi nañ école. Mhm. Euh, jàngee école Malick Kéré Diaw. Malick Kéré Diaw jóge Malick Kéré Diaw daal di dem euh, Jibril Diaw. Jibril Diaw jóge Jibril Diaw soog a jaar ACAPES yàlla dogal nag suñu njàng yam foofu. ok ma ma fan la fan la niveau. bi ma defee BFEM awuma rek damaa bàyyi. <laughs> waaw xëccoo classe góor ñu baax ñi xëccoo ma. boo xëntewu ma ku ne ak fi nga war a mën a yem et puis loolu yàlla dogal si ab ah, jaam yàlla dogalee fa loolu nag ñu ñu santee ko mais daal boo bëggee gis Baye Fall waaw mm-hmm. ah, jàppal maam Thierno Baye Fall moo tax ma indi la ci ëttu ndaanaan maam Thierno na la def ba intégré ci euh. dugg ci aar bi maam Thierno parce que yow wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, mënuñu wax aaru mm-hmm. biir réew mi wala ñu wax Thiès te tudduñu maam Thierno euh, ci talent ci bëgg aar <laughs> maam Thierno maam Thierno la def ba dugg ci aar Euh, waaw suñu dugg ci aar doonul loo xam tam lu jafe la woon. Mhm. parce que boobu ñoom Alaaji Latiir maa ngi koy nuyu de passage ak ñoom góor góorgóorlu boobu ñu ngi répété ci Apan. Apan oh, moom ak école Mambara ñoo dend. ok léegi bi ñuy répété foofu am ñu nekkoon suñu koñ comme ay ñoom Fatou Thiam maa ngi leen di nuyu ay ñoom Ndoura maa ngi leen di ziar ñoom ñoo ma yóbbu woon. ok mais bi ma demee di seetaan ma xam ne ñii li ñuy def comme si que li ñuy def day day mel ni man maa koy def. boobu foo toll ci ay boobu ma xool est-ce que ay deux mille deux mille sept boobu maa ngi jàngi école. yaa ngi jàngi école waaw ah, waaw boobu maa ngi jàngi école parce que man xale laa ma mag. <laughs> waaw maa ngi jàngi mais période boobu affaire bi di mu mel ni comme si que. day nelaw ci yow ah, day day am lu kii moom moom man maa fippu wax ni kooku fekk dafa am ku du am lu mu doon joué man ko est-ce que doo jox ma essayé ko boobu duggaguma ko ah. Hmm? te est-ce que doo ma jox ma ma essayé affaire bi affaire bi jàll. boobu ban ah. ban ban PS euh, ñu ngi doon joué am benn booy bu war a def affaire reewanto quoi. Hmm. waaw mais jaay pirek. jaay pirek def affaire reewanto ak yooyu. léegi alaaji la ci essayé ma ko affaire bi jàll. ok bi affaire bi jàllee mu ci suba mun ma ndax di nga ñëw ci laa commencé di ñëw mais góor góorgóorlu nag doon koo xamante ne borom xol ki la. Hmm. waaw te te ñu ci bu baax a baax a baax. fu ñuy hmm. dem ñun li ci ëpp li ñuy def théâtre sur scène la woon. période boobu waaye. théâtre seen xarmat fu ne defee nañ fa. mbapat nga quoi. waaw way way. mais après ban troupe nga nekkoon. après troupe yéete boobu rek laa nekk man musuma nekk ci benn troupe. bu dul troupe yéete musa nekk. troupe yéete laa musa nekk dem ba benn période nag comme li ñuy wax naan kenn ku ci nekk day dem ba mbir mi laaj dara. Mhm. maanaam parce que boobu sa waa koñ ñu ngi lay laaj naan la yow yaa ngi répété théâtre gis ñu la ci télé bi gis ñu la fenn est-ce li ngay def théâtre la fekk mais ñoom suñu waa koñ comme fuñ musaan dem defi théâtre sur scène dañ daan ak ñun ba léegi am ñoo xam ne comprendre ñu théâtre sur scène. ak ak ak film waaw parce que boo que théâtre sur scène moo wax théâtre loolu moo tax ñuy wax théâtre sur scène moo euh, mais téléfilm bi maanaam euh, gars yi dañu ko jàppee théâtre mais téléfilm la moom ak théâtre bi moom leneen la moom c'est diamétralement opposé bokkuñu mhm. waaw théâtre bi mooy li ngay def léegi léegi léegi mu jeex léegi bu jeexee jeex na. loolu ko mbappatu mënu ko. ah non waaye <laughs> ay ay ay eh, loolu moom euh, yàlla dogal tamit euh, waa ARCO ma ji leen nuyu parce que bi ma bokkee ci compagnie ARCO bi association bi. ah yaa euh, maa ngi ci biir moo bi ñuy def formation léegi ñu jël ñu duggal ci formation bi. Ah, donc def nga formation. ah oui ñaata temps formation. formation bi ma war a defaat nii nii nii mu war a nekk 3 ans. waaw te fu ñu ko dégg fu nekk nag euh, dem nañ fa am na yoo xam te da ngay dem ay formation mu war a nekk ay cinq jours yi da ngay dem mu war a nekk une semaine danga koy dégg da ngay dem parce que affaire bi moo ko laaj. kon maam Thiam su ma la déggee aar dafa laaj gëstu dafa laaj sonn. laaj na gëstu laaj na sonn laaj na patience toog xaar ko. Ah. parce que loo xaaru dox du la fa fekk. déedéet imaginez depuis 2007 ku gis maam na wala nga xam maam Thierno 2018 la. 2018 nga xam ni li daatul da nga da nga da nga lëlu woon rek. waaw di di di di liggéey. di di di job parce que job bi moo moo moo moo moo. laaj loolu mais kañ la maam Thierno sentir ci boppam ne li doon nelaw ci moom yeewu na. depuis premier jour ba mu ci dugg. Hmm? depuis premier jour parce que après ñi ngi ma koy wax di ma xamuñu ma am na samay maam yoo xamante ni dañ daan def ay théâtre arabe. Hmm. waaw maa ngi ci kon affaire bi Euh, Baye Cheikh moom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw ah, suñu di nuyu ay njabootam ku ci mel ne oustaz Mbaye Ndiaye Ngom ndax moom moo yor mm-hmm. léegi nii daara ja ca kër ga mm-hmm. di ko nuyu di nuyu euh, Papa Ndiaye Ngom ak ñoom suñu Fallou di leen di bu baax a baax léegi personnage su Mame Thier ñu gis nga xaw a timide mm-hmm. am na ñoo xam ne sax dañu jàpp ne Mame Thier noonu la mel mais ñun ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk Thiès xam nañu meloo noonu parce que personnage euh, dafa wuuteeg personne mais ñu mën a wax boo koy joué. Mhm. nan lay mel ci yow. Euh, parce que critique yi bari na trop. waaw euh, critique yi <laughs> euh, bari na trop. Mhm. mais plaisir laa ko jàppee. li tax mu xam nga dinaan dara boo boo naturel ci yow fii nit ki personnage boo gis mu di ko joué dafa nekk ci moom. Mhm. dafa dafa dafa lu nekk ci moom la. de nature daf koy daf koy sipp rek génn teg nit ki loolu lay gis bu paree mu jël dugalaat ko. comme sama li nekk sama poos kenn xamu ko. sa poos la lu ma ci génne wane loolu la nit ki di gis. Uh-huh. su ma paree su ma neexee ma ak sama poos. mais maam tey boo waxee ne dafa nekk ci nit maa duñ jàpp ne loolu dafa nekk ci yow. non non non maanaam waxee comme acteur. acteur en tant que acteur en tant que comédien di def dara. Uh-huh. maanaam personnage bi day nekk ci yow. su ma nee personnage bi. daf lay jege ba heure boo ko soxlaa mu ñëw heure personnage boo bëgg a ci àdduna. Uh-huh. loolu moo war a formation formation bi li tax mu baax ci doomu aadama bi loolu la. da lay jegeloo sa sa sa sa day la da war a jouer personnage bi nga war a jouer nii la mel ak nii ak nii la mel yow léegi da ngay da ngay dindi que en tant que maam Thierno personne teg na le war a mën a incarner personnage ban genre la léegi personnage boo ko incarner ba mu nekk ci yow loolu yaa ko moom. dafa nekk ci yow. voilà dafa nekk ci yow yaa ko moom léegi heure boo ko soxla dañ koy génn teg boo paree nga dugalaat ko. léegi li lay may ngay mën di dugal ak génn mu nekk ci yow nga man ko téye mu leeral li yaaxu moom. Mhm. heure boo ko soxlaa mu ñëw lan mhm. moo lay may loolu maam Thierno. coow liggéey. kese lépp nag ah. li ñaan loo doonul taalibeem loo doon sëñ waaw ci lépp nag ci àdduna. Mhm. lépp ci àdduna. liggéey moom mooy tax nga am ko. maa ngi nuyu Kombe du ma ko fàtte borom xolu ki ñaan la. <laughs> di di nuyu Baye. Baye Gaye Baye man ak moom du théâtre moo nu boole. Baye Gaye. non dañoo dañoo dañoo milante gi am na ñoom dañu naan yéen ñaar da ngeen a da a déggante du cadre loolu de maanaam ñoo bokk koñ. parce que man damay gis yéen ñaar bu ngeen di joué bu ma bu Baye Baye rek nga nga dugg. man ak moom ñoo ñoo ñoo bokk koñ man ak Baye bokku na néeg pendant dix ans. Hmm? bokk ci benn kër gi ñu nekk seen kër ak sunu kër su réewul pendant dix ans. ak lu ko ëpp ñooy demandoo répété ñooy ñëwandoo xam nga du cadre da ngay gis ni bàyyi ci télé bi wala maam cër nañ télé yaakaar na lu dunoo ñëw rek dem ni ci télé bi ah waaw waaw waaw am ngeen relation yu ëpp lu romb ëpp sax théâtre bi man ak moom kiif kiif du def lu ma yëgu du ma def lu mu yëgu ok ba jonni yàlla tey nii nii macha allah donc yàlla leen yàlla gën a yàggale ngeen di ànd parce que nag wax dëgg yàlla aar euh, nag buñ tong tong la rek waaw ku ne am nga si sëb cër. am nga <laughs> mais moo yi ñu dégg nga koy wax maam Thierno. Mm-hmm. ay capaxal xaw ma noo man ma sax ko wax. dëgg la <laughs> day am maam sa sa ruq. non xam booy def booy génn rek mu ne la maam Thierno xam nga xam nga Sénégal. Mm-hmm. nit ki booy def dara ñu bëgg la ci fexeel ba chaque jour ngay jox doomu aadama yi lu bees ci loolu. Mm-hmm. dañuy joué ma wax benn moom. bi ma waxee jour boobu ma xool parce que du woon salade de fruits moo njëkk a génn. série de fruits. Mm-hmm. léegi ma gis ni moo bi. xëy na peut être ko mm-hmm. ma xam ah, demee na nii il fallait que comme que doomu aadama yi ñi ngi xaar lii ci man maanaam personnage bi doon na personnage bu bees ci ñoom. Mm-hmm. léegi comme que doon na personnage bu bees ci ñoom il faut que ma am lu ma ci teg pour mu accompagner personnage ok ok léegi ci laa commencé di créer samay propre moowu bopp. moo yoo xam ne ci yow kese lañ koy déggee. samay propre moowu bopp Fatou Kiné nee na daal bëgg nga jox ko ci mooy. <laughs> non Fatou Kiné ñoom ñoom ñoom eh, ñoom ñor ñi ñor man yoruma ko. waaw ñooñu maa ngi leen di nuyu Fatou Kiné Ndeye Ndiaye ñoom sama samay samay jigéen bopp lañ samay jigéen bopp lañ. maanaam dañuy partage sax bu ñu tasantee tournage. Mm-hmm. dañuy dañuy waxtaan. di partage bu ñu amee séquence wala man moo dañ koy dañ waxtaanee. déggoo boobu lan moo ko indi entre yéen xam nga lan moo ko indi mm-hmm. xol bu rafet kon artiste dafa mel ni xol dafa rafet. non non <laughs> soo xol rafetul doo doon képp koo gis mu nekk artiste. Mhm. xol bi dafa rafet xam nga xol bi dafa rafet. Mhm. man mënuma ni damay won nit ki lu rafet sama xol mën a ñaaw. bu sa xol bu sa xol rafetul doo wane lu rafet parce que lu nekk ci xol day feeñ ci kanam. ci kanam te lu feeñ ci kanam doomu aadama bi loolu doo ngay gis. képp kuy artiste muy dox xol bu rafet la. ndeysaan donc maam Thierno boo boo boo génnee di dox ci di dox sa yittey bopp. Mhm. nga xam ne sa yittey bopp moo la génne. naka ngay ngay ngay ngay ngay dundee euh, nit ñi ak sa personnage xam nga nit ñi nag daa métti nag. <laughs> waaw dina benn euh, parce que ñoom euh, mhm. dañuy am problème toujours. Mhm. di jaawale personne bi ak personnage. te xamuñu loolu mbubb la mooy sol rek tey solo mbubb boobu. ñu ngi ñuy toog di waxtaan. da ngay wax wax ak man correctement. xam nga man sama côté li tax duma ci mën naa ne am na ñeneen ñu ci am benn jafe-jafe mais man sama côté xam nga du ci du ci am jafe-jafe mm-hmm. saa bu may yëkkati sama tànk bi génn suñu buntu kër mm-hmm. boo séenee kii ñëw lay lenn Baay mooy dox di mm-hmm. ma séenee xam ne kii ma séen ak ki ma gis am na ñoo xam dinaa leen dem ba romb leen ñuy soog a xam ndax est-ce que moom la am du moom parce que parce que li ngay gis ak am après nga gis beneen doomu aadama bi quoi day day day day xaw a changé ci yow. changé ci yow su ma su ma la robbee da ngay dute que ndax moom la am du bopp su may njaab da ngay xam ni góor yàlla mooy njaab Baay Faal dëgg mooy njaab su may dox sama yite bopp su ma yite bopp la su ma gisee koo xamante ni sax mi nga may xool di xaw a dute xaw a dutelu man maa lay man maa lay nuyu. Mhm. pour pour. pour en xam nga dañoo nekk ci jamono joo xam ne pour pour nga nekk artiste pour ñu jël lu ñaaw teg ko si ginnaaw dafa dafa dafa yomb. Ah, amul amul yitte. amul yitte ah. yëgul nit ñi. yëg boppam dafa yëg succès mais nag da nag booy. non non booy yéen da a garaaw booy xam nga xam nga dañuy jaawale dañuy jaawale yëg succès. <laughs> ndeysaan ak nekk ci yoon. nekk ci yoon. maanaam tey tey tey imaginel tey ma ay nit nuyu leen. dem ba sori ñu soog a reconnaître que ni maam la ñun la ndax war ndax war ngaa romb say fans doo leen faale parfois parfois day dal ay artistes mhm. mais léegi loolu yow loolu yow en tant que artiste affaire na nga koy jàppee léegi xam na nga mujj def mhm. d'accord accepté ci ñoom li ñu wax nga ñëw nuyu leen ka foo béggee ak ñoom mais pourtant am na temps boo xamante ni yaa ngi koy yàq yaa ngi koy perte mais ñoom duñ comprendre loolu mhm. mais il fallait que yow nga perte temps boobu pour mën leen satisfaire parce que rendre César ce qui appartient à César. waaw loolu tubaab wax. parce que doomu <laughs> aadama bi perte temps am toog di la seetaan di la bége. Mhm. dafa dafa métti. Mhm, man daf ma daan dal. Mhm. daf ma daan dal muy bége ay nit gis nga ma xam li ci ne. li ci nekk. léegi imagine tey am ay nit ñu lay bége da lay leen position ba nga taxawoon. loolu laay wax nag. parce que damay gis ne ñi leen di béggee souvent dañuy jooy ne artistes yi mënoo leen jot artistes dañu naqaree jot duñu lire message duñu wuyu appel ok surtout loolu nag loolu waaw waaw loolu il faut ñu comprendre <laughs> xam nga li tax loolu ñu comprendre ci mhm. man dama ko daan kaas mhm. waaye day fekk ne doomu aadama bi li muy kaas day fekk ni xamu ko dama daan kaas pourquoi ngay ngay pourquoi doo tontu message yi waaw yooyu noonu mhm. dama ko daan kaas mais il fallait que nga nekk ci benn affaire pour mën ko comprendre pour mën a comprendre. <laughs> gars yi fii ak ñoom seen position defuñu ko suñu côté. duñ comprendre comprendre. imaginez léegi durant tout le ramadan nga war a dawal trente épisodes léegi durant tout le ramadan nga war ko nekk tournant léegi ngay tourner boo yeggee si kër wala xalaat wala nekkaat ci est-ce que est-ce que période boobu li ngay am temps WhatsApp du bari mais tuuti la léegi temps WhatsApp boobu tuuti la du ñëpp nga ci mën a tontu. donc problème mu temps la quoi du problème mu ñàkk yitte non du de. Mhm. problème temps parce que ñun képp kuy artiste xam nga la mooy sa sa sa mébét. Mhm. ak sa objectif. Mhm. chaque jour ngay def loo xamante ni da ngay bégal sa fans. sa fan si ñoom bu ñu xëyee liggéey ñoom dañuy xëy liggéey parce que lii suñu métier la. donc ñoom bu ñu xëyee ci bureau yi yéen xëy ngeen. ci seen seen personnage ñoom xëy nañ ci. ñu ngi tourné pour ñoom bu ñu amee stress ñun ñu mën leen koo dindi. macha allah ñoom jàppal képp képp ku toog ci bureau di signé mois bi ngay signé. Mhm. ñun ñu ngi naan action ça tourne. action ça tourne <laughs> ndeysaan mu ngi noon mi ngi noon en tout cas maam Thierno am nañ mbégte ak kontaante ci ñëw gi nga ñëw ëttu ndaanaan ndax dëgg yàlla. Mhm. Euh, yow moom da ngay bégal gars yi. ci ci mhm. mais lan nga mës a jànkonteel ci loolu maam Thierno lu metti loo xam da nga génn dajeeg nit. rëq nan ma rëq. màggal Tuuba ma nekk ci kaw saret ma nekk ci kaw saret gain bi mi ngi dute ndax man la am du man parce que ki mu dendal mi ngi wax normal mais bi may communiquer ak ñoom Awa Ndiaye fekk boobu ñu waroon ñoo dal si ci man ci màggal tubaa gi. Mhm. parce que maa ngi nuyuwaale waa Touba sama ñoom bàjjen ñi nekk Touba. bàjjen Assa ñoom su ma ko limee rek dinaa juuf. waaw ah. ah, dinaa juuf mais Awa Taw laay wax su ma nee Awa Taw mu yóbbaale ñëpp Awa Diouf sama doom bàyyi la moom dina yóbbaale ñëpp képp kuy mhm. bàjjen moom dina ko dina ko joxaale euh, nuyoo bi këram laay dal. ok léegi ñoom bi ñu waree ñëw pour dalal si ma. Mhm. bi may wax ci sareet bi di leen expliquer mu dégg tur yi may lim benn par benn ci la xam ne daf maa rëq te naan ma baal <laughs> tey loo xalaat wax naa la ko ci lu ñaaw. ndeysaan mais damay nangu. yaa parce que ku boot bukki. xaj boobu la <laughs> loolu la loolu da ngay opté nangu. nga xam ni affaire bi affaire bi noonu noonu la demee euh, di. faransaay day métti. day métti day métti day métti day métti day métti euh, te en plus nañu bàyyi di wax naan. Euh, di di di kii comédiens yi. comédiens nous sommes des comédiens. Mm-hmm. fiers d'être des man xam na lay wax maam Thierno damay wax ne boo xëyee jël sa sac daal sa oto dugg. Mm-hmm. dem ba ca biro mm-hmm. nga dugg di liggéey. comédien bi noonu lay xëyee jël valisam def ci ay yéreem dem tournage. te yéen ne day xëy suba. 8 këram bu fa duggatee 11h. dama koy mujj di woo Bella noonu. non Ndeye Ndiaye noonu Sodo Diagne Sodo Diagne noonu oh, dama man ma di ko ñaanal mhm. dama maa ngi nekk di liggéey ci maison de production Kër Kombe TV. waaw aussi loolu bëggoon naa ñu dugg parce que dafa mel ni yow yaa yaa ngi fa kii nga fa loo fa lépp on a mën naa la wax ni la maison de production Kër Kombe TV du Kombe mais man la yaa ko yor moo tax maam ci amutoo jot kenn amutoo jot. man man la woon imagine produit yu bëri man maa koy def comme presque dafa doon koo xam dafa ñàkk ki mu ni mu ni li ma dal li ma li ma nekk ci aar mu dal ma ci bëgg mu dal yéen ñi soog a ñëw. Mhm. da ngay dégg ñu maison de production Kër Kombe TV nga ni eh Kombe moo ko yor pour te dire vrai Kombe du ci dara. Kombe moom daal tur ma ci nekk waaye tur bi moo ci nekk Kombe du ci dara maa ngi nuyu Moussa Cissé presque man. Baysal ak Dave ñun ñett ñooñu ñooy nekk sur le terrain ak li maison de production bi di rëy rëy ak li koy dégg dégg dégg. ok ok lan moo indi qualité boobu sa diggante Combé. Euh, man doomu aadama ci kàddu man daara laa juddoo kenn mënu maa nax. Mhm. ci kàddu laay jàppee nit ci kàddu laa koy bàyyee. Mhm. dafa wax ni kaay leen ñu liggéey. Mhm. ñu ñëw toog mu ni dañuy liggéey dara amu fi. dara amu fi. nañ leen jóg daanoo danoo commencé ndoos zéro lu ci am nga xam ne lii moo ci am. macha allah xam nga kooku neex liggéey. waaw waaw mu mu mu mu mu dégager ay responsabilités dafa dem bu xam nga commencement bi daan nekk ndoom ñun ci terrain bi. Mm-hmm. nekk ndoom ñun ci terrain mu dem benn instant mu toog. bàyyi gen ngeen gérer. dañuy jékki-jékki sax ñun ñett ñu ñett ñun deew parce que deew mooy cadré. deew mooy cadré Baye Zane mooy réalisateur bi moom mooy bind. man maay def son par exemple may def son di def ndoo lumière dem bu waree dem gos kon maam mu maam Thierno comédien la mais technicien la aussi. oui technicien la oui. Hmm? waaw mooy loolu. noonu da nga di euh, loolu moom du formation. Hmm. mais mën naa ne loolu may suñu borom suñu borom mais bi ma xamee ne may suñu borom dafa war a ànd ak liggéey. wala ak gëstu ak gëstu. dama dem gëstu ji. ci Abbas Fësal moom mooy son Fësal. bu ma yoroon son au palais des arts Abbas maa ngi koy ziar di ko mu doon ku ñàkk ki ñaan moom mu di ma woo këram di ma woon bagage yi étape par étape maanaam boo nekkee ci salle bi ban ni nga jëlee sa son boo nekkee ci mbedd mi mu dem ba mu digg affaire bi ma comprendre mais ñun ñett dañ doon liggéey dañuy liggéey liggéey boo xamante ni tey bu dee ko dee bu dee cadré bu waree jëm gauche mm-hmm. même su ma ko gisul dinaa xam ne moment bii dafa war dem gauche waaw métier bu bu mokkul doon noonu borom. léegi nag loolu moo waral kon bi dañ lay muuñ naa ko yow temps yi da nga kii maa ngi leen di gis ngeen di dem. sama xel day dal sama xel day dal kon xam nga ni kooku kooku maam deful dara. deful dara vraiment lépp ñun la. vraiment maam Thiel lan mooy lan mooy projet yi. waaw bari na parce que surtout période bi euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi nga wàcc. Mhm. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sottil. Euh, ñu ngi am na projet buy daw sax boo xamante ni mi ngi mais ñu ngi koy dawal comme ñun ñett dañuy liggéey. Mm-hmm. Euh, ñu ngi koy dawal ci site bi ñuy wax Look TV. boobu kër Kobe yi ñu ngi koy defal ay booy yu dëkk fële euh, Mbour. Mbour parce que ñun. boobu yéen a koy produire ñun ñoo koy produire. on est là comme que ñun yàlla dafa dogal ni soreeguñu ci aar bi. Mm-hmm. mais comme ci affaire technique yàlla am na lu ñu ci may. Mm-hmm. ñun ñu ngi nii taxaw. pour jeunes yi nga xamante dañoo nekk ci yenn dëkk yi. comme ni ëttu ndaanaan taxawee rek. comme ni ëttu ndaanaan taxawee di di génne artiste. pour gars yi comprendre ni xam li xew. xam li xew que ni gars yi ci ci personne bi ak personnage ñu xàmmee ko aussi xam ne ay jeunes yu nangoo liggéey ngeen. waaw léegi nag loolu moo waral léegi defal nañu produit ak waa Joal. Mm-hmm. def nañu produit ak waa Tivaouane yi def nañu produit ak waa Mbour yi te en plus képp ku pare pour liggéey ci fulla ak fayda nous on la pour travailler avec yow. ok waaw projet yooyu moom yaatu na te en plus du téye ñun suñuy projet bopp ñi ngi ak moom di ko doxal du la yàqal dara sorti ci la ak def ci ak def ci la ah, dafa yaatu Assane artiste comédien la nañ ko mayonnaise rek kase kenn du ko dañ ah, ah, ko mayonnaise ku ne ñam jàpp sa soos waaw projet yi en plus maa ngi joppandoo ko comme ni ma la ko doon waxee sànq yu benn association waaw waaw ñuy wax aimer aider protéger ok waaw muy doon protéger mu doon ay jeunes yoo xam ne dañoo taxaw pour social moo leen tax a jóg comme que ñun dañoo doon ay nitu daara. waaye lu ngeen di aimer ak lu ngeen di protéger. waa aimer aider protéger. Mhm. bu la neexee ngeen ni aider aimer loolu yaakaar naa ne yàlla sunu borom moom moo ko njëkk def ci doomu adama bi. Mhm, mhm. parce que yàlla bi mu bi mu ñu bëggee. daf ñoo dimbali ba pare di ñu aar. comme que yàlla moo sàkk ay jaamam di leen def loolu. kon jaam yi seen jëmmi bopp yoon la. ñoom tamit ñu def lool parce que yàlla dafa bëri sutura. te képp ku suturaal doomu aadama yàlla suturaal la donte ñëpp seen loxo jotul seen ginnaaw. Mhm. ñun tamit suñu loxo jotul suñu ginnaaw. Mhm. waaye li ñu jot a am te pour association ñi ci ëpp ay hmm? ñi ci ëpp maa ngi nuyu Ousmane parce que Ousmane laa xamante ne Instagram lewoon ni ñun affaire bi dafa yaatu. ok Instagram laa xamante ak moom. Ousmane Ousmane Seydi ñu jàppante. feddante coloré booba léegi coloré man ku ma mënta jàppante te yàlla tax ak coloré da dem toog xaar loolu moo taw tey ba association bi di nuyu présidente bi su ma nuyee Ousmane Ousmane moom mooy nuyu góor ñi léegi suñu présidente bi euh, bu saar Saareen bu bëgg ceeb bi moom tamit mooy mooy nuyu ñu ci des te vendredi bii nii muy ginnaaw suba war nañoo dem fee nga xamante ne mooy Rufisque waaw ci rond point yu juuti bi pour joxe foofu ay ndogu mais du du ci koor gi képp koo bëgg nga cee jàpp dinga ñëw nga jàpp ci parce que numéro bi dañ ko bind ci suuf après gars yi yëpp jàpp ci parce que dañ ko bëgg a décentraliser bu dul koor gi sax ñu continuer ko te incha allah rabi ci loolu lañ nekk te yooyu tamit dafa bokk ci projet yi ñoom ma di leen sant di leen gërëm ci dugal gi ñu ma dugal ci biir macha allah waaw di di rafetlu maam Thierno yow da ngaa baax parce que yow euh, nitu kese nga Euh, disponible fu la nit soxlaa ñëw nga donc ñu ngi lay sant di la gërëm ci ñëw gi nga ñëw ëtt ndaanaan parce que ëtt ndaanaan sa yëf la ëtt <laughs> ndaanaan may nuyu sama tailleur Yaya Miami Couture mm-hmm. nga xam ne moom ñaw rek lay def bëgg dem mu ñawal na daaw Daouda lu rafet rafet rafet <laughs> sama cameraman bi <laughs> maa ngi koy nuyu moom itam Daouda Sow mm-hmm. nga xam ne wax dëgg yàlla gis nga moom heure boo ko soxlaayee mu ñëw ñu liggéey mm-hmm. vraiment di nit koo xam ne nit ku baax laa ko disponible Daouda maa ngi lay sant di la gërëm maam Thierno mooy sa kàddu yu mujj euh, kàddu yu mujj mooy cant la ak ngërëm waaw mm-hmm. ah, di santaat bu baax a baax a baax waa Sénégal rawatina waa Thiès kaay amuma seen fay waa Thiès Thiès ñoo doon koo xamante ni. Mm-hmm. boo buñ la jàppee boo nekkoon ci rondal sax jàpp nañ la. loolu mi ngi mi ngi Thiès moo tax bu ñuy wax naan nitu Thiès damay xam ne kiy wax nitu Thiès il n'a rien compris. il n'a rien compris. Mm-hmm. mais nous sommes des nitu Thiès. Mm-hmm. mais fierté bi des nitu Thiès. Mm-hmm. ku fi jug taxaw ca kaw. doomu Thiès moo la yëkkati ba ca kaw moo kaw. kon maa ngi sant waa Thiès bu baax a baax di sant waa Kër Sëñ Ablaye bi mu jógee di sant sama yaay di ko gërëm. kooku sama maam boo xamante ne kenn la ci man nu ma mel moom la yaafandoo yi kooku su ma ko ñëwee rek lim naa waa kër ga yëpp ak sama ndijaay ñu di ma jàppale di ma tette waa di sant euh, ko Couture ma asu sugu nga xamante ne lu rafet la ma defal pour Korité kañ la may ñëwal non dama ko couture mi ngi nekkee ci côté xabru bi soriwu ko di ma ñëwal de ak euh, Diop Diop création sama sama sama cousin la Diop création mën a ñëw trop moom tamit macha allah yow daal ku lay ñëw dama ñëwal ak waaw sa lay yóbbu ci saadi bu daat ndaanaan bii tamit yow li ngay sol li ngay hmm. bu daat moo lay ñawal saadi bu daat ci côté xabru bi la nekk saadi bu maa ngi ñëw waaw ñawal moom di sant ñëpp di gërëm ñëpp ëttu daanaan noo fi fi réew mi toll de. képp mhm. kuy ndaanaan di nga ñëw ci ëttu ndaanaan xoolal sama yaay moo may woo nii. ah ndeysaan maman ñu ngi lay ziar daf may yëg daf may sentir ñu ngi yëgante. Ah, wuyu ko def ko mel ni moom yaa ngi ñëw. <laughs> waaw <laughs> waaw kon côté moo <laughs> di problème sant ñëpp di di gërëm ñëpp euh, di wax ni leen ëttu ndaanaan nañu nii. Mhm. doomu Thiès moo ko moom. Mhm. bu ko neexoon mu dem feneen. jàng na lu ko yóbbu feneen. mais dañu lu mu am Thiès moo ko gënal ñun tamit lu mu am Thiès moo ko gënal ku ko jàppale jàppale doomu Thiès jàppale waa Thiès su ko defee di sant ñëppaat di gërëmaan ñëpp di leen wax peace and love sama gars yi. mi ngi noonu euh, am nañ cant ak ngërëm ci euh, maam Thierno mi ñu dalaloon ci natt di woo nag képp koo xamante ne am nga produit yoo xam ne bëgg nga mu jàng ëttu ndaanaan fi pour yéen. Mm-hmm. Euh, moo xam maam Thierno danga nga yor restaurant. Mm-hmm. da nga yor boutique lépp loo. jaay jaay fa muy jotee. sponsor yi ah! daw leen ngeen ñëw. daw leen ñëw. te xam ne bu ngeen ñëwee ci ëttu ndaanaan yi ñun ak yéen ñoo ko bokk ñoo ngi ci biir. mi ngi mi ngi noonu mi ngi noonu kon kon nañ leen. di ko en tout cas daal numéro baa ngi noonu ci suuf. képp ku ñu contacter incha allah dinañ liggéey yow. Mm-hmm. ba pare dañ la koy jàpp daral. billaay billaay fii dara méttiwul fi. waaw euh, xam naa beneen yoon ci beneen invité incha allah.